bon vraiment li c'est désolant parce que dañu nekk fee nekk ak ay jigéen ñuy vivre dans l'insécurité non seulement cimetières yi ni ku nekk say sëg nga am avant may wax sëg yi am na ay sunu maire yu nekk fi maire Fat Fat express d'Arossar, tout récemment ndox ndox mii nga xamante ni ak nous ndox mii nga xamante ni moo taw taw dugg ci seen biir kër daanaka yàq lépp seen dund yi seen yére yi lépp a yàqu comprendre nga ñun ñoo doon ñëw di leen porter di leen secourir di leen jàppale di leen dimbali di génne ndox mi ci biti. yaa may dégg bi miir bi miiru sëg yi daanoo gis ngeen sëg yi ni mel bi miiru sëg yi daanoo. ci la ndox mi yëpp évacué ci seen kër dugg ci biir armère yi. déjà am na ci ay bàmmeel yoo xamante ni raaf nañ ba pare autorités yi nag lañuy ñuy interprété. surtout à l'une, euh, qui, euh, monsieur le maire, Euh, Thiès Nord Lamine Diallo yaa may dégg moom moo mooy ki ñu gën a jige mhm. bu ñuy yuuxu dañuy yuuxu jëmale ko ci moom bu ñu mënul dara nag ñu soog a dem ci keneen mhm. moom moo ñu gën a jige tout récemment kër Issa gii la dëkk a mhm. deux mètres de sa maison kon rafet na moom ci wàllu boppam à tout moment muy ñëw di nemmeeku population civile bi lan moo leen dal te fii yàgg nañ ko wax situation Medina Fall ni mel daf am ay côté yoo xamante nii ndox mi day dem ba foofu mu stagné wu fa ah tak fa du biir kër yi c'est de l'insécurité totale jigéen ni jaaxle nañu ndax góor ñi fi mu actuellement bu ñu xëyee seen kër la tal lu ñu daw di dugal ci seen biir kër la ñu am bu nawet bi ñëwee lépp lu ñu tabaxoon lu ñu defaroon day yàqu complètement comprendre nga kon dañu bëgg ñu dimbali ñu ngir yàlla war ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jàppale ñu non seulement waxuma tout simplement ñu méré gi rek yem ci buñu un ci te taliba ay trottoir dégg ndox yi ici yi muy jaar di ñëw ah, intercalé wuñu ko ça ne veut rien dire ça revient à zéro ça revient au même Les may dégg li am solo tali nañ ci def trottoir buñ ci trottoir ici yi nga moy génn di jaar ci côté nord bi côté ouest bi fi, ndox yi di tant que baare wuñu loolu dañuy sonn rek mais toujours chaque nawet après nawet ndox mi day ñëw day ñëwaat fii sëg yaa ngi nii déjà am na ci ay bàmmeel yoo xamante ni tey bu ndox mi jeexee raaf na seeni borom dootuñu xamante fan la gis nga gis ngeen mi ngi nii gis ngeen xam nga ni rafetul mm-hmm. rafetul yiwul tinul mm-hmm. yaa ñii seen i dund la même chose amatuñu dund mm-hmm. ceeb ndox mi bi mu ñëwee yàq na seen seen yére yi ak seen dund ak seen lépp kon euh, armeel yi waaw dañoo seetlu amul sécurité aussi wax nga ko mais lumière bi moom mi ngi tàkk. mi ngi takk te lenn des na ndax am na. gardien wala amul gardien. Mm-hmm. non amul gardien benn pas moo fi ñëw par bëccëg mais après day dem amul gardien boo xamante mën nañu kii gardien bu fixe la. léeg nga gis fi benn moment nit ñëw toog fi quelque instant bale nettoyé tuuti rek ci côté buntu ba toog ci buntu ba yelwaan tuuti daal di am tuuti xaalisam daal di dem yoonam. comme nga mais amagul un gardien fixe boo xamante mën nañ ni kii. actuellement moo taxaw armée bi amu fi. miir bi ay nit ay bonne te ñoo fi ñëwoon doon ko defar mais defar bi mooy loolu. yaa may dégg ñoo génne seen stuut am seen defte yàlla tax ñu def mais dëgër bi tax ko woon mu demee noonu moo tax bi ndox mi ñëwee parce que miir gën na koo yàgg ndox ñëw te amul benn problème mais tey bi bi bi bi bi bi nawet bi ñëwee tey ndox mi yàgg fi yàggul dara da koo da koo daaneel mais miir bi dafa gu fi lu war a mat quatre def fi quatre ans mais tey gis ngeen ni mu mel. fii ñu taxaw nii mooy miiru sëg yi. pour mu leer ci ñëpp fi ñu taxaw ni miir bi dafa daanu ñu mën faa taxaw. yaa may dégg sëg yaa ngi nii nii fang fangaaral bàmmeel yi ci baree baree bari la même chose yàqu na. nañ dimbali nit ñi sunu homme politique yi nañu bàyyi bu campagne électorale jotee yaa may dégg ñu ñëw fab ay milliards dépensé ko ci seen i besoins yi bopp ba pare bàyyi population bi nga xamante ni ñoo leen fal. ñoo leen fal parce que ñoom tey suñu amee doole ñun ñoo leen fal yaa may dégg ñun ñoo leen fal kon nañ dimbali ñi leen fal yaa may dégg nañ dimbali ñi leen fal te bañ a jël affaire bi di ko yemal seen i bopp ay xale ngi fi nekk yoo xamante ni tey bu doon ñoom la ñu liggéey dëkk bi ñoo leen gën a compétent fuuf bu doon ñoom la liggéey nañ dëkk bi bu yàgg a yàgg a yàgg ñu toog fi lu ñu leen joxul amul ñu nekk ñu jéem a ci nañ ñu jàppale liggéey dëkk bi waa Thiès Merveille ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax depuis affaire bi mu amee ba léegi ñuy woote fu nekk mais gisuñu kenn yéen lañ yéen lañu gis kon ñu ngi leen sant bu baax ndax euh, taxaw ngeen population bi waaw lii nag ñoo ko gisandoo situation bi doy na waar ndax dëkk bu doy ni Medina Fall almeer yi ñu koy wooye almeer yi kuy texe maam Cheikh Ibrahima Fall daa koy sanc mu ñu mu ñëw demee nii mu ngi nekk loo xam ne ñëpp ñu ngi koy nakarlu am na ñoo xam ne tey démb lañu doon ak bërki démb mais boo xooloon seeni tomb tey euh, maar daytaane yéeme na trop waaw kër yi tamit mu ngi nii kër yëpp a fees fees na dell donc ñu ngi lancé un appel solennel à l'état à la mairie képp ku si mën a jàpp ñu ñëw jàpp ci parce que situation bi doy na waar trop fi mu toll nii kër yëpp a fees juste pour dire que tey même bu ñu tabaxaatoon mur almeer yi euh, aussi jéemuñoo calé tali bi euh, du mën a dem tali bi am trottoir warna am aussi canalisation ñun on est en train de souffrir depuis des années heure bu tawé on vit les mêmes situations ah donc euh, vraiment euh, metti na metti na trop trop tay kër go dugg sen matlaay sen seen denrée yi lepp yakuna tout wax dëgg fa yàlla fi mu toll nii ndox mi euh, dans tous les bords yëpp fii lay ñëwee fépp. donc juste euh, pour ñu dimbali ñu rek loolu la depuis bi ñu construire tali seen bis bi euh, ba nii affaire bi dafa pant tey ndox mi ñëw fii yëpp nekkul sunu ndox mais dafa jógee feneen ñëw fii. donc juste nag di di ñaanaat encore une fois képp koo xam ni bonne volonté nga wala mu nekk état. wala keneen ñu ngi lay tàllal loxo. na Fall vous voyez. Tay mu le quartier le plus populaire à Thiès. Tay en cas de politique li ñuy joxé ci politique mais toujours nous sommes oubliés nous sommes oubliés donc état ak euh, tout. ceux qui sont des autorités nous les lignons, encore une fois ngeen ñew taxaw ñu ndax situation bi trop c'est une situation alarmante les gens vont passer la nuit à Belle Étoile. maa ngi leen nuyu seen tur seen sant di leen xamal nag ni sonn nanu maar nanu mënatu xamatunu fu nu jëm sama sët bii dama ko doon daw di jàpp ci ndox mi ngi ma boot da doon dugg ci ndox ma di ko jàpp ci laa ko si pee bàyyi ma doon wax léegi ñu ne dañoo sonn ñetti kilo ceeb yi ñetti meetar xartu bi sonn nan ci xoolal na ngeen defal nañ defaree engrais moor jaxeer mu am ay canal ndox mi di dem noonu la ñu bëgg ñu defal lu ko fii bu ngeen defaree armée te defalu leen nit day daanuwaat rek ci suuf la jamaat lépp nag babor mi nag fii la ñun ñëpp danoo yendoo nga ci añunu man sama añ baa ngi yekkaguma ko ba nëgën sama goro bi togg na ko pare man ko bu ko yàq amul fu nu toog ba lekk kër ga fees dal akum ndox ak koñ bi yëpp nag amul kenn ko des kër ñii kii kodam faama ndim Samba Diagne mi seet waaw bu pare kon ko ba may ko wax fii kër na koy jóoba fii kër Ngisali euh, euh, ak kër Dem ak kër Daaro Sarr ak sama kër man Fane Ndiaye juróomi kër yi amuñu tey fu nu noyyee mbaa fu nu mën a waxee mbaa kenn kenn ko daw bëgg a wallu sa morom la nekk sa kër doy la sëkk da dan daan walloon te waaye tey mënuñu ko ku ne la nga yor doy na la nu ne doonoo sonn ci ñetti kilo ceeb ak ñaari métari xartu mi nu bëggatuñ ci dara li nuy ñaan ah bi loo koy ñaan moo di mbedd mi rek ñu defaral ñu ko man bëgguma ceeb bëgguma diwlin xiifu ma ban juddoo ba tey noo ngi lekk ban juddoo ba tey ñu dund dundal suñuy doom dama ne ñun ku ñu defaral la ñu bëgg waaw bëgg xiifuñu mariñu waaw rafle wuñu doyal nañu sakk lu mu doon lu ne doyal nan te nun daal ndox mi moo nu jaaxal mënatu noo toxu njaboot lanu <laughs> amul lu jëlewaat feneen kër maire bi noo bëgg mu defal ñu kër yi buñ ne mënee may yeneen kër yi nu toxu dem ca man ak Macky Sall man na sama kër Macky Sall sax ku ma ko jaay jaay ko ko ma gëtuma fii dara son naa torop son nañu son nañu maar nañu sama borom kër day mag dama fi nekk délégué quartier ma ngi yëpp taar ñun nag bëgguñu xaalis man du ma leen may juum sunu angal bi yëpp yëpp ñëpp a génn kenn ku yaa ngi fa dugg ndax ndox mi ñun ñaanu xaalis dañoo bëgg Macky Sall ak sunu maire yi dimbali leen ci ay kanaal ay canal lañu bëgg ndax son nañu lool lu mat fanweeri at noo ngi dëkk ci nii lañ dëkk rek bu ñu amee armoire mu yàqu noo am ay lal mu yàqu noo am ay ay ay ay mébali néeg mépp yàqu noo ngi daal sonn lool nag noonu Macky Sall jàppale ak kan sunu maire dëkk bi nañu wutal ay canal sonn nañu lool noo ngi sàkku ndimbal nag ay jaboot lanu li ma fi dégg docteur Ndiaye bëri na ah, moom it loolu ngeen koy waaw docteur Ndiaye ñu ngi koy daay ba seegul fii fii daal kuñ fi gis noonu kuñ fi dégg mooy Lamine Diallo moo ñu ñaareel ba kenn fi déggaat mooy kooku nu mu tudd sax di déedéet mbokkum mbokkum keneen ku dëkk fële xaw ma nan ñaa abim ñaa na fi dégg seet alaaw waaye gisuñu kenn nag. gisuñu kenn ndaal noo ni nii ku nu wookaat nu ak sunu njaboot waaye kenn dimbaliwul ndox maa ngi la jël suñu kër yi lool ak sunu njaboot gu ndaw gi bëgguñu xaalis daal canal lañu bëgg nañu dimbali si canal. waaw. sonn nañu ëpp na fukki at sak suur nii la at mu ne nii la dañoo sonn danoo bëgg ku ñu jàppale danoo bëgg rek ku ñu jàppale du ceeb du dawlin danoo bëgg ku ñu defal canal sonn nañu at mu ne bu kii suñu njaboot yi dañ ciy bëgg a lab sax wóor na yàlla ak yonent bi ay xarak ay béy mas nañ fee dee jàppale leen nu te yàlla tax sonn nañu sonn nañu bay bëgg a dee ku fi ñëw nag ñu jàppale la ku ñu jàppale nag ñu jàppale maanaam gisuñu kenn ku nu jàppale dégg nga Lamine jàll mooy maire bi buñ fa demee naan dina ñëw te du ñëw sonn nañu ngir yàlla ngeen jàppale rek te yàlla tax waa lool rek laa doon wax wa salaam. nga booy ñëpp heure bu taw bi kii ñooy sonn di jàppale suñu yaay ak sunu baay suñu gisee ñuy def fii ñëw di liggéey du benn maire moo ñëw jàppale ñu. du kenn ku nekk ci état yi sunu gana yi nekk ci koñ bi ñoo fi taxawal asos di jàppale waa koñ bi di fi gas ay kii euh, ñu fi pujar ñu fi def suñu tuur suñu ndox yu bon yeeg yooyu dañoo bëgg nag ñu ñëw jàppale ñu defal ñu suñu armée yi nga xam ne dëkku maam Serap Fall la suñu ko mënut a jàppale ñun suñu bopp ñun jeunes yi fi dëkk dinañ génne suñu xaasu bopp nattu jàppale suñu bopp defal suñu koñ mais ñoo ngi tàllal nag suñu loxo di leen ñaan yéen euh, yéen ñu nekk autorité euh, yéen ñu nekk ci kii état bi ngeen dimbali ñu ñun ci koñ bi rek lan am mënuñoo dem bàyyi koñ bi koñ bi rek lan am dañoo bëgg ngeen dimbali ngir jëm Sëñ Tuubaa waaw defaral ñu suñu koñ bi waaw absolument loolu rek laa am lu ci mën doon wax